sant yàlla tey li ñu fi indi fii ci Pikine ginnaaw raay li ñu fi indi nag mooy famille Aziz Dabala ñoom ñoo woote point de presse pour lan ngeen gis affiche yi ak t-shirt yi jarul ba ciy xóotal ñoom ñi nga xam ñoom ñooy ndey mbili gi dinañ wax lan moo waral ndaje bi ñu bàyyi ki xam moom mooy ubbi kàddu bi moo yor seen kaddu ñu ubbi ku ci war a jël parole ñu jox na ko ñu dégloo liñ fiy taataan nekk njëriñ ñu mën koo jëriñ ñi nga xam ne Sénégalais yi toog di xaar ci à travers internet yi fi nekk yëpp yaay booy jërëjëf ñu bàyyi la asalaamaaleykum wa rahmatullah ansbilahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim bi ñu santee yàlla di julli ci yonent bi dañoo woote woon ndaje bi tey ci génnu àdduna Aziz Dabala ñu xam ko ci Abdou Aziz Ba may rakku yaayam ñu bokk ndey ak baay macha allah li ñu fi dajale woon nag mooy yàlla daf ñoo ñàkkaloo sunu doom ndax loo gis sababu suñu boroom la ñu ñu tooñ ko fekk ko biir këram boom ko moom ak waal ñu am ñoo xam ne nii dañ leen cee tudd jël leen justice jël leen yóbbu leen mandat de dépôt ñu leen yóbbu mandat de dépôt ñun ñu doyloo ci sunu sunu justice yu réew du caageenu Aziz Dabala amul ay mbokk du caageenu Aziz Dabala amul ñu ko mën a taxawal ci ginnaawam ndax li yoon wax def nañ ko mooy ñu wut suñu avocat wut awakaa jotee wut nañ suñu avocat macha allah ñi nga xam ni nii dañ leen cee tudd ñu yóbbu leen mandat de dépôt góor ñi ak jigéen ñi tubaarkàlla macha allah ñu jékki-jékki gis am kuñ ci tudd ne def dañ koo may liberté provisoire ñun nag xëy na xamuñu lu bari ay jigéen nañu waaye Aziz Dabala tubaarkàlla macha allah bu dee ay mbokk rek ci réew mii kenn ëpp ko ay mbokk waaye nag dañoo wóolu suñu justice su réew xam ni ki nga xam ne nii coupable am na muy rey ñu ñëw def seen enquête ñëw jël si ko ñu jébbal ko suñu boroom justice bi ñu bàyyi lépp ci loxoom. kon bu nu jékki-jékkee jékki gis koo xam ni dañ ko ci tubboo tuddoon yóbbu ko ci kanamu procureur ñu def ko mandat de dépôt jékki-jékki génne nañu ni génne nan ko te sunu avocat yëgul ti nu te ñun li ci dossier bi xamagoon ni ko ubbeeguñu ay dossier loolu jaaxal famille bi jaaxal famille bi bi muy benn muy naqar ci famille bi ndax li génnee ki génn ki ñu wax ne génn na muy lambulee li ko génnee mën na génnee ñeneen ndax Sénégal gis nañ fi ñu rey nit ñu jékkee-jékki mu dem ay 10 ans 15 ans dootoo déggati ñu wax waxam kon donc mais du bii du ba du bos abi Aziz Dabala bi ndax boo gisee ay mbokkam yaayam ji tubaarkàlla sa allah mooy sunu taawu yaay moom taawam man moom ñoo maase taawam boot na ma ak taawam kon nga xam ni kii du xale mag la naqar boobu yépp nekk ci sunu sunu bopp tey jii li ñu gën a loon mooy justice def liggéeyam duñ ko ko jàngal mais justice bu defee liggéeyam ñu xam kan moo def ak kan moo deful waaye bu ñu xamul kan moo def ak kan moo deful ñu jékki-jékkee ñi ñu jàppoon ñu jël ci kenn génne ko loolu dinañ am naqar dañuy lancer nag message président de la république président de la république moo jiite Sénégal jiite ñu nekk sunu président ñun ñëpp mais dafa am ndaw bu mu jiital sunu biir sunu sunu kanam muy ministre de la justice xeebu ñu leen duñ leen jàngal seen liggéey waaw waaye ñi ngi tàn ñi leen di tàllal loxo di ñaan ci ñoom ndimbal ginnaaw loolu ñi ngi sant réew mi yépp di gërëm réew mi yépp di gërëm extérieur monde entier ñi ngi leen di gërëm di leen sant ndax bi lii amee kenn ku nekk def nga ko muy sa naqar àdduna bi yëpp kon bi Nabou lay génnee tamit àdduna bi yëpp ñii am nañ ci naqar ñiy wax dëgg ñi nga xam ne nii ne leneen la ñuy wax ñi ngi wax leneen ñi ngi wax leneen kon nag kàddu gi ma jël sama mag wérul ñu jëlloo ma kàddu ci kàddu euh, euh, famille bi looloo tax ma jël yooyu kàddu allahumma salli ala sayyidina. mais bu déggee mooy yéen instant bi da am jàkkare daal da ngeen a jaaxle. ci ñu libéré Nabou bien loolu moo ñu jaaxal te li ñu jaaxal jaaxal na àdduna li ñu jaaxal jaaxal na àdduna bi yëpp waxuma Sénégal di mais àdduna bi la jaaxal ndax ku dugg si internet bi dugg ci nit ñi dégg nit ñi li ñuy wax xam ne jaaxal na àdduna ndax ku jàngul xamuloo xamuloo justice ni muy doxee sax ñu ni jàpp na nañu nit yóbbu ko gendarmerie wala police police dina la teg teg ki ki nga xam ne nii moom la ne liñ lay jiiñ moom nga ko def su sumaan koo xam ne dañ koo fekk biir këram rey ko rey bu ñaaw boobu moom ak waali ñu jékki-jékki ñi ngi ciy tudd ñu jékki-jékki bàyyi kenn mu génn noonu la ñuy toogee toog toog ba gis ñëpp duñ ñu romb suñu xol yi di dagg te danoo am njaboot ci réew mi Aziz ku xool affaire am ni mu demee xam ne Aziz ah am na lu yàlla def ci moom ndax du ci moom ci deretam la wax day leer. ñu gis ni boobu ba tey famille bi yéen ngi ak dal macha allah. waaw di tax ñu waaye instant bii nii am na ñu ngi dégg ci fort bi dañoo bëgg a def marche ngir naqaru loolu. waaw est-ce que loolu da ngeen koy dëggal xam nga xam nga mënaguñoo def marche dañuy yëglu ndax lii boo gisee ñu woote conférence de presse dañuy yëglu ndax li tax ñuy yëglu mooy am nañu lu ñu yi te bu doon fajal suñu bopp la kon du yegg si fii comme nag dañoo am justice wóolu suñu justice du réew jël lépp jébbal ko yoon police gen police Pikine def def enquête am ñu yóbbu ko di di def enquête am jébbal procureur procureur def li muy def def leen mandat de dépôt suñu sañoon lépp loo xam ne ne dañ koy def suñu justice yi réew leeralal ñu ko ndax bu nu jàppee nit war nañoo wax lii lañ ko jàppee suñ ko bàyyee war na ñoo wax lii lañ ko bàyyee. d'accord soxna si fi may jëwee rek mooy am ngeen avocat. am nañu avocat avocat bi moo leen teewal foofu. Mhm. lan lan teg seen noppi avocat ak lan lan ko wax avant libération bi di am yëg na a yëgul. yëgul. ci nan la leen ko annoncé. yëgul ndax ñun dañoo toog rek dégg ko woo ko mu ne moom yëgul. te moom mi ngi dem toujours du jot pour affaire euh, euh, dossier dossiers yi mais moom jotagu ci. parce que dañ ne ni ñu ko bàyyee libération lañ ko bàyyi. wala ah, dañ ko def ci dañ ko def ci libération wala wala contrôle judiciaire ban façon anam dañ ko bàyyi ah man de dañoo dégg ne rek na bàyyi nañ ko mel ni ko libéré provisoire liberté léegi nag ñoom ñun loolu ñu lekk ci ñëpp dégg loolu la ñu déggee ci ci ci ci ci ci réseaux sociaux yi ak ak ak journalistes yi ñun ñoom ñu ko yëgal ñun. li jaaxal ñëpp balaa liberté mën a am pour man jugement day am ngeen taxaw devant le bar. très bien jugement amagul nan la mën a def ba signer liberté provisoire te jugement amagul. loolu moo ñu jaaxal. loolu moo ñu jaaxal génne suñuy xol li ñu naqari woon ñu koy muñ loolu gën koo génne li ñu naqari woon jooy nañu barki démb ba tey kenn jógul ci sa biir néeg muy ku bokk ak Aziz Dabala muy bitim réew ñi bokk ak moom muy àdduna bi daal ñi bokk ak moom ak ñi bokkul ak moom loolu moo leen jaaxal ndax nit ki ah métit bi dafa ñëwaat dafa mel ne démb barki démb jeudi ci lañu boom Aziz Dabala ndax bu ñu wóoloo suñu justice su réew enquête am jébbal procureur am loolu yëpp am kon bu ñuy jël jël suñu avocat suñu avocat jotagul ci dossier bi pour ubbi ko ndax dañ ne dañu jël vacance dañ ñi avocat yi dañu nekk vacance comme dañu nekk vacance nag xëy na moo tax jotagul woon ci dossier bi bu mu dégg ne dañoo may Nabou Leye liberté provisoire looloo tax mu delluwaat tribunal di xool ndax loolu am na wala amul ndax mënuñoo wax ci mbedd mënuñoo wax ci comme comme jël nañu avocat moom ñu mën a waxal ñu xamal nañu libéré nañ ko. yan kàddu leen seen avocat wax ginnaaw bi mu déggee ni lan la joxalante yéen ci loolu jëm ci yéen. xamal nañu ne daal moom jotul jotul notification boo xam ne nii moom lañ ko jox pour bàyyi na bu lay te bala ñu laa bàyyi kay war nañoo jox sa avocat notification boo xam ne nii dinañ ni lii ak lii nii lañ tëdde wala lee la tëddee moo tax ñu bàyyi na bu lay hmm. ñun dañoo jéggi jéggi rek gis na bu lay ci mbedd mi. mais ci mais ci biir procédure judiciaire bi nga xam ne euh, euh, euh, ñoo ngi ñoo ngi koy def ci dossier Aziz Dabala ndax yéen wala avocat bi nga xam ne moom ngeen activité ndax moom mu ngi jot ay information yi tax aussi tamit dossier bi ba ñu ko fa yóbbook léegi amuñu ci benn information jugé wuñu woote wuñu woowuñu yaayam na ko kay ñëwal tribunal bi yaayam biñ ko woowee dig bi am mbir mi di doog a am enquête ko. xamal ko génne ñi nga xam ni ñoom lañ ci euh, tuumaal wan ko yaayam ci la keroog la ñu gëj a xam ci dossier bi dara du caageenu nag càggande du caageenu ne euh, euh, famille bi dañu sàggan caageenu wóolu suñu justice la caageenu wóolu suñu justice la ndax war a wóolu suñu justice ci Sénégal looloo tax lii am li ma waxoon sànq ñu enquête jël ay nit jàpp leen yóbbu jékki-jékki génne nit ñun yëguñu ci dara. parce que li jaaxal ñëpp mooy nit ñu ci mbedd bi ñoo njëkk a yëg libération Nabou Leye hmm. loolu moo jaaxal ñëpp. waaw parce que biñ ko annoncé seen avocat biñ ko njëkkee wax ay dëgg yëgul. jot na seen avocat ak seen avocat nee na loolu amul biñ incité nag ayda loolu am na vérifié leen effectivement loolu am na kon seen avocat nekkul en courant comprendre lan la. ah xam nga mënul nekk en cours. Ah. parce que bu ñuy yóbbu ñoo euh, euh, kii def joxe defee ñi mandat de ñu wut suñu avocat avocat bi yéex nañ ko wut mais am nañu avocat avocat bi bala muy dem tribunal di mën a ubbi dossier il faut mu fekk fa ña muy ubbanteel dossier du dëgg ndax neen doon neñ niñ moom dañu nekkoon conseil looloo tax waaye may lancé waat message àdduna bi yëpp nag ci kàddu yaayu Aziz Dabala ndax ni ngeen ko gisee nii ni mu noppee noonu la noppee mu ñun ñi ñëpp moo ñu bokk waaye du caageenu Aziz dabalaa amul ay mbokk du caageenu Aziz Dabala amul ay taxaw ndax Souleymane Ndéné Ndiaye mi nga xam ne ni moom mooy avocat Nabou Leye ah man xamoon ne woon sax Souleymane Ndéné njaay mooy avocat Nabou Leye bokk nañu pala lu ne maanaam waaye xaw ma ne woon sax moom mooy avocat man Nabou Leye donc su dee moom ko plaidel ba tax ñu bàyyi ko def na lu mu xamul wala mu def loo xam ne nii ah dañ ko dooleel ndax fi ma nekk nii si àddina li ci gën a metti mooy nee nañu ñàkk néew doole la ci Sénégal man gëw ma loolu xam nga gëw ma loolu ndax soo demee tribunal am na ñoo xam ne dañuy volonté wu gis dossier volonté ñëw jàppale nit ki dimbali ko ci dossier am waaye dossier boo xam ne kenn ubbeeku ko kenn tike ko ko woowaguñ leen jugé wuñ leen woowaguñu coupable bi ay seeni famille woowaguñu woowaguñu woowaguñu woowaguñu woowaguñu ñu jékki jekki gis kuñ ci libéré kon waroon nañoo teg suñu loxo lan moo taxoon ñu jàpp ko wala lan moo taxoon ñu bàyyi ko lan moo tax ñu bàyyi ko. est-ce que ki ci libéré mi ngi Sénégal. ah wóoruma wóoruñu. en tout cas daal ko lépp li ko mbuxum ba génn ko. waaw est-ce que mën na koo mbuxum ba ko dëkk bi. na loolu mën naa nekk. mën naa nekk de ndax senegal moom lu mu ko loo ne mënu fee nekk rek mën na fee nekk waaw ndax mënuñu maa tooñ. fekk sama doom ci biir këram rey ko fekk sama doom ci biir këram rey ko moom ak waali jamate leen def leen liñ leen di def ba pare kiñ ci tudd mën koo génne li ko mën a génne man na koo génne bitim réew moo tax ñuy lancer waat euh, message président de la république ministre de la justice parce que lii nii ñu nabulee lii ñu bàyyee nabulee mën nañ ko bàyyee ñeneen ñi te nag maire bi dafa jaboot jabootam dëkk biir ginnaaw raay ñun ñu jaboot dëkk ci réew mi ku nekk da ngaa jóge ci ci ci dëkk bi foo fasantikoo ñëw fii tey ginnaaw raay ndax tubarkàlla suñu yaay dee na mooy mooy suñu yaay te ñun ñëpp kenn ku ne am nga njaboot te nag nit ki mënu laa def lu bon ba pare di la romb gauche droite mënul nekk. yaay gën a jaaxal ci dossier deux mois après après décès Aziz Dabala gis nañ ne huitième personne bi jàpp nañ ko ci information yi ñu jot ñu toog ñu foog ne enquête bi day continuer parce que information judiciaire lay wax la ñu tudd affaire waaw ñu bi voilà gis libération Nabou Leye ndax loolu xawul lënt lënt lënt lënt na lënt na lënt na àdduna lënt na àdduna du ñun rek la lënt sunuy xel ndax Aziz dayoon bi du ñun rek la naqari asi deew rey ñu ko moom kenn danoo rey ñu baree baree baree baree baree baree famille la ñu rey li lënt bopp lënt suñu bopp loolu ci la gën a bopp moo tax sànq ma wax la si sama biir wax dañoo wóolu suñu justice Sénégal looloo tax waxuñu ci woon defuñu ci woon waaye comme nii la demee nag ba nii la demee ñu ngi déglu après suñu conférence de presse bi ba xam fan la ñuy mujjee ak waa justice. ñëw ci kaawu Nabou Leye Nabou Leye ba Aziz Dabala euh, génne àdduna na moom mii doon seet si waa lan la tegoon seen loxo. man xam ne war nañ ko man bi mu ñëwee fii euh, bi ñu suba la ñuy saraxal da Aziz Dabala sol yëre Baay Faal def kàngoro li ñuy wax xale yi di di sol nii capuchon toog moom ak frère bu frère am ak yaayam dafa sëgg tegul dara ci sunuy loxo lu dul dañoo ñëwoon di jaale. ndax suba bu ñu ñëwee ci sarax si mën nañoo def Nabou lu lu ñaaw ndax bi may ñëw léegi ci biir kër gi dañ ko doon yuuxoo ci mbedd bi ma ne ko Nabou mu ne ah ma ne ko Nabou Leye mu ne ah ma ne ko barke Serigne Babacar Sy mi ñu yaakaar deretu assis bii képp ku ko laalal ci suuf doo rëcc bu dee defoo dara nag yàgg yàlla boo defee dara di nga feeñ man maa ko tontu loolu sama gémmi dina ko wax waaw famille ñëwaatuñu fi famille ñëwuñu fi déggantewuñu kenn ah ah famille gisuñu famille dégguñu famille suñuy famille demuñu ci ñoom suñuy famille ñëwuñu ci ñoom ki nga xam ne ni mooy coupable bu muy waali def nañu li ñu war a def ndax kër Aziz la nekkoon Aziz def ko comme doom du mu euh, rakk ju mu bokkal nday ak baay dem nañu kër Waly masawu leen ndax fi mu génnee àdduna foofu la Aziz génnee àdduna waaye waa kër ñoom nabu lay jeudi ba ma la fi ba mu fi ñëwee kañ na ba lañ doon saraxal Aziz samedi moom mu ñëw fi vendredi adri ah non vendredi la fi ñëw ay 6 heures bu mu ñëwee ànd ak yaayam ak tàntam ak magam bu góor sëgg nanguwul kanamam feeñ di jooy ma ne ko nabula Leye looy jooy defoo looy jooy mu ni si gét xool ma ma ne ko boo ci laalee lu tol fa tol nag kar fata lay ni di nga feeñ ndax doomu aadama moo mel noonu boo deful dara nag amul problème man lii laa ko wax diggante waatu ñoo seen famille wala ñu wax ak ñoom wala kenn wax ak ñoom mais moom mi doon jëflanteeg Aïda wala suñu yaay lu yan kàddu la doon gën a yëkkati ci ci man na Nabou Leye boo bëggee dégg day dëgg kii moo ko yar ndax bi muy ànd ak Aziz ñoom ay xale yu ndaw lañ tubaarkalla seen yaay yi di jaayee fii ci marché Thiaroye ñuy ànd ñoom ñaar di dimbali seen seeni seeni waaju kon nga xam ànd boobu yàgg na kon donc Nabou Leye ñun taxaluñu ko seetaluñu ko di leer na Nabou Leye taxaluñu ko seetaluñu ko ndax justice ci boppam gënuñ duñ leen jàngal seen liggéey li ñu naqari ba naqari ñu naqari famille bi naqari àdduna naqari àdduna bi yëpp mooy li ñu jékki-jékki gis ko ci biti te ñun yëguñu tenuñu dégguñu teguñu dara ci suñuy loxo moom ak ñeneen ñi fa bokk boole jàpp waaw. d'accord léegi gis nga fi benn membre woo nañ ne yëgul wala ñoom danoo danoo dem ba toog bàyyi noonu wala lan la. bàyyiwuñu noonu de ndax kenn du rey sa sa sa sa sa doom euh, kenn bàyyiwu leen de ndax ñoom ñoom ñoom ñëw nañ ba fii ñun dem nañ ba fi kii moo jiite woon délégation yow demoon nga ci délégation. te ñoom bala ñoo tëgg lii di ko def woo nañ leen yëgal leen ko waaw dañoo am ngànt moo tax ñëwuñu. te bi ñu amee ngant jël nañu seen lépp ne jébbal nañ ko Aziz ak eh, Aline dara ñu bokk ak Aziz Nday ak Baay lu ñu def rek ànd nañ seen ñoom. ginnaaw famille bi toog ci jaaxle nag parce que leneen li ci topp mooy bi dernière décision bi lan la parce que la fait libération am te rendre leen compte ñu leen lu tax dernière décision bi yéen lan la. waaw ah, dernière décision bi lay lii rek la ndax eh, yàlla sunu borom bu moo ñu jox sunu doom yàlla mënoon koo jëlal boppam nit jël ko. ay nit jël ko suñu justice defee liggéeyam wala laay xam du bu deful liggéeyam ñun suñuy pax duñ ko wax kenn li ñuy def duñ ko wax kenn ndax ci réew mii lañ dëkk réew mi la ñu dëkk te kenn gënu ñoo xam ah, fu ñuy teg suñu tànk ndax man mii ngeen gis nii damay politique ànd ak président Abdoulaye Wade nekk conseil municipal municipal mairie Golf Sud réew mi li ma fi xam. xam naa ko te fi may teg sama tànk duma ko wax fi dag kii dañ ko ne na toog jàpp julli ñaanal Aziz lépp lu ñuy def famille bi dinañ ko def lépp lu ñuy wax famille bi dinañ ko wax avocat yi du benn avocat dinañ lu lépp lu ñuy def daal dinañ ko def ci kaw teg ko ci yoon teg ko ci loo xam ne nii di dégluwaat justice bi ba xam lan moo tax ñu libéré la euh, Nabou Leye. ginnaaw ngeen woo xam ne ñoo yor wàllu droit humain wala société civile. waaw société civile dinañ dem société civile dinañ woo képp koo xam ne nii mën nañoo jàppale ci lii. dinañ jël suñu tànk fu ñu war a dem dinañ fa dem fu ñu war a wax dinañ fa wax fu ñu war a taxaw dinañ fa taxaw presse bii ñu def soo nu mënee jàppale tàllal nañ la loxo.